ngeen leen di a jot moo leen a xam ñu ngi leen di delloo nuyoo bu baax leen ziara waaw xam nga comme ni nga ko waxee mbir mi opération la opération bi itam li ko andi mooy ndigal lu bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadul Mountakha loo xam ne dafa sàkkuwaat ñu gën a setalaat penc mi ci mboolem yi nga xam ne moo fi nekk yooyu nag bokk na ci regle mbirum circulation bi ci boppam euh, bokk na ci itam ñi nga xam ne dañuy taxawalu ci pénc mi di sonal nit ñi di def euh, lu mel ni ay yelwaan ak di kar nit ñi ba duñ mën a def seen i ziar ni mu waree loolu bokk na ci li nga xam ne moo waral opération bi bokk na ci itam gone yi nga xam ne dañuy daw di tëdd ci mbedd yi ak di nekk ci pénc mi loolu itam bokk na ci opération bi bokk na ci opération bi ñi nga xam ne dañuy ñëw ci biir pénc mi di fi jaay ak euh, yu ne yu ni demee ni nga xam ne noonu lañ ko teree woon ci penc bi waaye bokk na ci nag surtout euh, oto yi nga xam ne dañ fiy taxaw di fi yebe ay client di fi woote ñu dem ca garage yi coxeur yi ak yu mel noonu opération boobu nag bi liggéey loolu nag bi ko sëriñ bi joxee jaar nañ fa ñu war a jaar informé nañ sëriñ bi ci boppam sax moo woo préfet ba préfet def sous préfet def benn arrêté euh, wax ko maire yi maire yi itam ñu ngi ci ay liggéey ngir defar sax tableau yi nga xam ne ñoo war a def interdiction yi def nañu barki démb itam benn état des lieux informé nañu itam police ak gendarmerie ba barki démb ci bi ñu waree tàmbali opération bi rek di samedi bi ànd nañ ak sous préfet ak euh, ndawul police euh, wër mboolem li nga xam ne ñëw wër jumaa ji bedd yëpp yi nga xam ne fi la circulation bi war a jaar ñu bokk itam waxtaan waxtaanee li nga xam ne mooy opération bi nga xam ne moom la ñu war a def opération boobu nag moom la ñu tàmbali démb ci samedi ji ci fajar bi ñuy julli fajar quatre heures du matin lañ ñëw ci jumaa ji commencé daayira bépp di wër jàpp nañ fi lu bari ci ay xale yoo xam ne dañoo dawoon euh, lu ëpp fukk ak juróom enregistré nañ leen fii ci benn kaye ñoo xam ne dañoo daw jàng ñii tëdd ci mbedd ñii di def leneen di taxawaalu am na ci ñu jóge woon kokki am na ci ñu jóge jurbel am na ci ñu jóge ci ay daara ci biir dëkk bi waaye ñoom ñëpp suñu borom tabaraka wa taala dimbali nañu ba dellu nañ ci seen i njaboot ci démb ci tisbaar itam am na fi ay jigéen ñoo xam ne itam dañu nekk fii di lëjle euh, ci penc mi euh, bokkoon nañ ci ñi nga xam ne téyewaale woon nañ leen fii démb. yàlla dogal nag mu am ci seen soxna soo xam ne dañ ko cee di ramassaale wàllum ci wàllum ci biir ci biir jigéen ñooñu nga xam ne ñoom lañ jàppoon fii euh, bii mu ñëwee mu mel ne ko àndul ak sagoom mel ne kuy daanu daal xaw ñoo jaaxal nag tuuti fexe ba dalal ko ci ni nga xam ne noonu lañuy ñuy dalalee nit ku yiw dalal xelam ko mu xam ne euh, dara du ko ci fekk lu dul jàmm ak salaam ak tawfiq neexal ko maslaak moom ba mu nangoo waxtaan waaye ci biir ci biir waxtaan wi ñu laaj ko nu mu tudd mu ne faatu saar la tudd ma nga dëkk Cubbeen ca Saloum waaye mi ngi nekkoon Ndakaaru dafa am baj tantam ju ko yar ju yor ndeyam ak baayam dañoo génn àdduna tànta jooju nag daf koy sonal moo tax mu génn dem ñu ne ko léegi fexeel bañ jox ñu sa adresse tànta jooju ñu waxtaan ak moom ngir nga mën a dellu mu nangu naa joxe numéro sax waaye numéro bi ministre jot kenn mu waxit ne tàntam jooju moom xelam xalaatul dellu fa ñu laaj ko noo bëgg a def kon mu ne bëggul sax toog ci dëkk bi waaye nañ ko fexe ba mu dem ci ay bokkam ca cubbeen foofu nag yàlla dogal na amu fa benn numéro téléphone mu jaaxal ñu ba guddi bi ñuy wàcc ñu dénk ko sëñ Mbacke jam yi nga xam ne mooy yore caabi jumaa ji mu yóbbu ko këram kom moom kër gu mag la yor te ay jigéen bari nañ fa man na faa nekk ci biir këram moom demee ñu toppatoo ko mu reer xëy ndekki sangu ba set ñëw bi mu xëytee euh, féex la xëy see lool ak mbégte euh, ñu ngi koy tooñ ko mbaa gi neex na mu ne waaw kër gi moom neex na trop xana kon da nga da nga fi toog mu ne waaye damay toog li ma gënal mooy ma dellu ma dem ca sama nijaay cub cub benn ci noonu xam nga ne daayira bi yaatu na ay membre yu bare ngi ci dëkk yu bari comme ni def ba xam ba jot kokki def ko ba jot Jurbel def ko ba jot feneen investi noonu la ñuy def itam ba jot euh, ñu dëkk euh, Kër Madiabel ñooñu dañuy jokkale bañ am ko dëkk Cubeen euh, kooku nag bi ñu waxtaanee moom mu di ko gëstu ba xam ay waajuram la ne xam na ay waay waajuram waaye am na benn magam bu nekk Dakar nañ ko mag ja Mouhamed Ndiaye la tudd ñu woo Mouhamed Ndiaye moomu waxtaan wax ak moom mu ne nañ ko yónnee photom par whatsapp ñu envoyé ko photo bi mu ne waaw kii dey sama rakk la sun ñaari baay ñoo bokk ndey ak baay soxnas oustaz Omar Sall la maa ngi fi yebal léegi sama mel na mbokk mu ñëw foofu dellu si ko comme tudd na ne soxnas oustaz Omar Sall la soxnas jàmbur fekkente ne def nga ba gis ko day rafet na nga woo ki nga xam ne moo ko yor informé ko ne ko sa soxna si nga xam ne dafa réeroon gis nañ ko fii xoolal ndax moom la wala du moom ndax it nit mën na la ne kii sama mbokk la wala nangam nangam waaye na nga am ñaar ak ñett moo gën a leer ñoo xam ne kenn ñoom ñëpp dañuy bokk luñ wax te duñ yëgoo ndax mbirum nit la ñu door a ñu woo commissaire informé ko daal di def nag ay pexe ngir xam numéro Omar Sall rek moom xamul numéro Omar Sall ñu mbokk moo xam ne mi ngi fii ci dëkk bi di sunu mbokk ñu bokk ñu seq liggéey bi mën naa ko tudd sax ndax lu baax la def muy alaaj Ndiaye Cheikh Ndindi euh, ne ko fexeel ma ba ci bokk yi nga xam ne ñoo nekk Dakar bañ am numéro Oustaz Omar Sall mu mu ne ma waaw léegi day def ay jéego moom itam ngir jot ko. ba jot ko. xamal ko ne ko am na ko ñu far fii ci jumaa ji wax nañ ne soxnaam la. waa ma Muxaddamatul ma ci opération bi nga xam ne moom lañ doon def ngir setal penc mi ak jumaa ji ci lañ ko gise jox ko sama numéro man mi ngir mu war maa woo yàlla dogal na sax lu jiitu mu woo mu woo ma jox ma numéro bi man ma woo ko bi ma ko wooyee informé ko ne ko dañoo am ko ñu far moom nag nee na Faat Sarr la tudd lëkk tubee nangam nangam mu ne ma kon du moom ma ne ko ah te nga tuuti rek yor nga téléphone ñu envoyé la kéem ndax jot nañ magam ji tudd Mouhamed Ndiaye ndax dafa mel ni Ndiaye la sant ndax ki ñu jot mu ne ñoo bokk bàyyi Mouhamed Ndiaye la tudd mu ne ma waaw effectivement am naa numéro WhatsApp ci noonu ma envoyé ko photo bi fekk am na sama rakk ji ko photo woon ba yónnee woon ko Mouhamed Ndiaye moom jox envoyé ma photo bi man ma envoyé ko ko bi ma ko envoyé nag mu ne ma tigi kii la man ko léegi nag mu ma maa ngi yebal léegi ñu ñëw fekk fu ngeen nekk ci jumaa ji mu ne ko waaye ñu ngi ci biir jumaa ji bu egsi rek bu laajtee daayira Moukhaddamatoul Khidma danañ ko dox daal di waat commissaire xamal ko ne ko jot nañu borom këram jot nañu itam magam ba danañ ñëw incha allah ñu ngi ñëw mu ne kon léegi suñu egsee su borom këram egsee parce que boobu sax moom mag ji moom ki mu yebaloon ñëw na boobu moom jëlagul décision pour ñëw euh, ginnaaw bi nag moo commissaire ne kon suñu egsee nañ leen woo mën nañoo téye soxna si fii lépp nag bi ñëw demee ba xam loolu informé waatuñ soxna si nekku nag xamal nañ jot nañ say bokk ndax dañ doon bañ mu daw wala muy eh, defaat yu mel ne yëm dañu def daanu wala yu mel noonu waaye dañ ko seere ci suñ biir ñun ba akook dal ba xamu ci dara di ko toppatoo nag teg ko ci roq boo xam ne bi eh, danañ ko toppatoo ci léppam ba dara du manqué ngir mën a jot ci yu noonu mm. waaye alhamdulilahi rabbil alamin daal démb ak tey jàpp nañ fi nag mbooloo bu bari. Euh, ci ci chiffre xam naa da bari nag ñoo am na ci ñoo xam ne dañ leen a téye ba kii bàyyi leen ñu demee ñi nga xam ne ay. ay dongay daara lañ. jàpp nañ ci lu mat fukk ak juróom ñi nga xam ne ay coxeur lañ ak i nangam jàpp nañ ci lu toll ci ñeen fukk. Euh, ñi nga xam ne ne ay ay ay ay ay délinquant lañ moom yoo xam ne dañ doon def lu jubadi moom. jox nañ leen police bu ngeen demee police dañ leen jox nombre bi nga xam ne ñëw nañ fi xam naa daal duy nañ fi oto ba fees yóbbu nañ ko waaye nag ginnaaw ci loxoy yoon moom na yoon waxal boppam ne na nga xam ne noonu la xam nga nag dëkk euh, mbir day jox day dox ci yoon ginnaaw mbirum nit la dëgg la nee na euh, dox nañ ba xam moom ndaw si waxu waxuñu woon ne kii mooy borom këram waaye dox nañ ba xam ne kii mooy boroom këram te dafa demoon te ba mu demee itam gis nañ ci presse bi ñii di wax naan dañ ko kidnappé ñii naan dañ koo nangam façon waxi ñi bari na léegi su fekkente ne def nañ ba gis ay kii ay ay bokkam dañ koy jébbal yoon yoon jébbal ko ay bokkam ndax mbir ndax ndax mbir mi demoon na ci yoon bu noppi. ci tënk sëñ laat mën nañ jàpp yéen daayira bi muy ci seen i loxo. Mm-hmm. ci anam yu rafet la anam yu rafet la ci génn wax. allah moom bu ñu duggee ci suñuy loxo ci anam yu rafet la ci duggee bu ñu génn ci suñuy loxo itam. ci anam rafet la ñuy génne ci suñu loxo incha allahu taala. wax naam alhamdulilah. wa salaatu wa salaam wa ala waaw alhamdulilah léegi dégg nañ kàddu yëpp lu seex bi wa wax dëgg yàlla rafet na yàlla yàlla fay leen yàlla yàlla barke ñun ñoo nekk ndongo Umar Sall man maay chauffeur am man chauffeur am laa ndongom laa xaritam laa yàgg nañ. ba ma woowee moo ma ne kat sàmbkat dégg nañ ne Awa Ndiaye feeñ na Touba def leen tout ngeen dem jëli ko ñu ànd ak caméraman kii mooy caméraman Oustaz Oumar Sall kii rakkam la ñu ànd ak moom ñëw fi ba ñu woowee ñu woo seex bi mu lu ñu fii ñu ñëw si jumaa ji mu ñëw ñu xaar ñu ne nañu xaar benn fereeram ñëw ñu xaal fereen bu ñëw ñu waxtaan alhamdulilah rafet nañ gis nañ mbir bi gis nañ ko wante gis nañ ko wax dëgg yàlla alhamdulilah sant nañ yàlla bu baax yàlla yàlla fay leen mm-hmm. yàlla yàlla barkeel leen mm-hmm. yàlla barkeel liggéey yombal Samba Niang ah. seen bokk Samba Niang may wax fekk ngeen ko ci anam yoo xam alhamdulilah fekk nañ ko anam bu rafet macha allah alhamdulilah wax dëgg yàlla loolu a la wax dëgg yàlla nañ gis mm-hmm. gis ñu moom benn gaañu gaañu gis moom dara wax dëgg yàlla ñooy sant yàlla quoi alhamdulilah jërëjëf yàlla yàlla nañ fi ak soxna bu mel ne am nga bokk mën nga jëkkaatal kooku sama rakk la euh, papam ak sama papa ñoo bokk ndey ak baay. xam hmm. ah. nga la tudd. waaw Awa Ndiaye euh, la tudd. Kër Massar. Kër Omar Sall. Omar Omar Sall. maanaam bi mu ñëwee moom gisee nga waxtaan ak moom ba. daal gis naa ko wax naa ak moom mais nag moom nanguut a reconnaître kenn moom. dafa mel ne yow la jumaa euh, a waaw woo waaw dañ maa woo buñ ma wooyee tamit euh, euh, buñ ma wooyee na ma Mouhamed yow la Mouhamed Ndiaye na waaw ñu ne ma da nga xam rakk bu réer may tudd ñu Awa Ndiaye ñu ne ma ne Awa Ndiaye la tudd de. ma ne ko ah ñu waaw ma ne ko est am photo ñu ne ma waaw léegi mu photo photo ko envoyé ma ndax xam nga àdduna bi moom par léegi dafa xaw a doy waar mu ko envoyé ma ko bu ma ko envoyé tamit xam naa ne moom la xam naa ne moom la waaw léegi nag moo tax ma déparé Dakar jëm si fii mhm. moo tax ma déparé Dakar jëm si fii quoi mhm.